saari woy gëm ña ka jog makk la miatun téeméer la wa samaanun ak juróom-ñett wa samaanun ak juróom asharatun ak fukk ayatan ci kaawteef de bismillahi sos na wax sama wax turi buur arrahmaani buur koy aji xewal mboolem bi daabool ci àddina arrahimi kay aji yaram wala kay aji xewal mboolem jullit ëllëg ci àllaaxira de qad aflaxa texe na almuminuuna way gëm ñe de yàlla nee na ñu gëm yàlla ña ñoom texe nañ de texe mooy lan mooy mucc safara dugg aljana loolu mooy texe ku ko yàlla may texe nga de tabaraka wa taala moom moo aljana ba mu ne ko yaal aljana yaa dox lu mat juróom benn téeméeri juróomi téeméeri junne yoon mètre di daw rek juróom benn téeméeri junne at juróomi téeméeri junne at aljana di daw rek di yaatu di yaatu rek yàlla ne ko yaal tàllalal muy tàllal rek mi ne ko comme ni day nan mi ne ko comme ni day ni sama yërmande aljana kon ba tey ma ngay ma ngay de ndax yërmaane yàlla kenn a fu mu am de ndax yërmaane yàlla melo la ci jëmm ci jëmm yàlla amul doya amul doya am fu kon ba tey aljana ma ngay tàlleeku de moo tax ñuy dëkk aljana ñëpp yàlla nañ ci yàlla boole kenn du dëkk kenn du ci pegg aljana de ñëpp ci digg ba lañ nekk ñëpp pegg aljana kenn xamul fu nekk de yàlla moo bind aadama yàlla moo ko bind ak loxoom aljana yàlla moo ko bind ak loxoom garab ak tuuba ga ca aljana yàlla moo ko bind ak loxoom de aljana nag ba ko yàlla bindee ba pare na ko loo mi ne ko qad aflahal mu'minuuna de ñi gëm ñi gëm yàlla texe nañ de ñi dëkkee daal mooy ñi nga ne ñoom ñoo gëm yàlla ñooñu ñooy dëkkee aljana de ñi texe nag ñooñu yàlla melal na leen juróom-ñaari melo de mooy ñan alladina mooy ñi nga xam ne hum ñoom xaashiuuna way torox lañ fi salaatihim ci julli seen de ñi gëm yàlla nag mooy ñan mooy ñoo xam ne dañuy toroxlul yàlla ci seen ak julli de kon gëm yàlla rek doyut boo gëmee yàlla rek da ngay gëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm lépp loo xam ne dikkee na ko ndax yahood yi gëm nañ ne yàlla am na waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lañ weddi de kon boo gëmee yàlla da ngay gëm lépp loo xam ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam indee na ko nga gëm ko de gëm yàlla nag buñ ko waxee ci xol lay nekk da nga koy tudd ci làmmiñ waaye xol bi moo koy ci xol bi nga koy fas cër yi ñoom ñoo koy jëfee de ñi nga xam ne nag ñoom ñoo gëm yàlla ñoom dañuy toroxlul yàlla ci seen ak julli de lu ci julli mooy lan mooy boy julli mooy nga toroxlul yàlla ci biir julli ji loolu lañ namm ci toroxlu ci julli ndax julli a ah, a ah, toroxlul yàlla charte la ci julli de luñ luñ luñ chartal la ci julli sa bopp na nga na na toroxul yàlla mooy nga fexe taxawal sa bopp bi mu jub bu ko nekk di ko dëngal ak nangam loolu yëpp ci toroxlul yàlla ci julli ci la bokk ak toroxlul yàlla ci bët mooy lan mooy booy taxaw di julli bul geesu ndeyjoor bul geesu càmmooy bul geesu ndeyjoor bul geesu càmmooy de nga toroxlul yàlla de toroxlul yàlla ak nopp mooy li ngay jàng alxuraan li ngay jàng nga koy déglu nga koy déglu de li ngay jàng ngay déglu maanaa yi boo mënta xam ba mën a seetantal maanaa yi nga déglu ne yaa ngi jàng alxuraan te waxi borom bi la de toroxlul yàlla ci say loxo mooy nga yëkk ci sa loxo ndeyjoor teg ko sa kaw loxo càmmooy bi teg leen ñoom ñaar sa dënd bi de nga toroxlul yàlla sa tànk bi tamit dafa war a toroxlul yàlla mooy sa ñaari tànk yëpp nga samp ko bu dëgër ba nga xam ne doo nekk di yëngatu de kon julli ngóog yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy toroxlul yàlla ci julli ñooñu ñooñu ñooy way gëm ñi de benn ngóog ci lim leen mel le torox yàlla toroxlul yàlla nag loolu mooy zahir bi waaye toroxlul yàlla ci baatin mooy nga fexe ba nga xam ne sa lépp dafay sa baati yépp dafay soxloo yàlla de dafay soxloo yàlla ba nga xam ne doo xelaat dara dara lu dul yàlla de sa ruux gi dafay soxloo yàlla mooy lan dafay toroxlul yàlla ruuxu nag toroxlul yàlla mooy mu gestu bañ a gestu leneen lu yàlla sa sirru bi moom itam na toroxlul yàlla mooy lan mu ñàkk teewal dara lu dul rek gëm ne yaa rek moo fi teew de sa xol bi tamit mu toroxlul yàlla mooy muy xalaat ci mbir yi de kon nag jaam bi war naa toroxlul yàlla nit ki nag ni zahiram mel noonu la baatinam mel de nit koo gis rek fu fekkee ne baatinam ma ngay toroxlul yàlla da nga ko gis ci zahiram de da gis ci zahiram ne kii ku toroxlul yàlla la waaye su fekkee ne nit ki ci zaahiram da ngaa gis ne toroxlul yàlla toroxlu yàlla xamal ne baatina mi noonu la mel de ndax ah, zaahir moom mooy feeñal baatini nit ki de yonent bi sallallahu alayhi wa woo gis ne benn waay di julli waay ja nag ma ngay gëstu nday joor ak càmmooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kii xolam toroxluwul yàlla de ndax bu fekkoon ne xolam mi ngi toroxlul yàlla kon dana feeñ ci zaahiram de maanaam baatinam toroxlul yàlla bu baatinam toroxloon yàlla kon dana feeñ ci ci ci zaahiram de waaye toroxlul yàlla de kon toroxlul yàlla ngoog ci biir julli yàlla yàlla tagg na ñooñu de léeg-léeg nag nga gis koo xam ne ah, toroxlul na yàlla baatinam toroxlul na yàlla ragal na yàlla def na lépp waaye yaa ngi koy gis da da da nga gis ne bu waxee ñëpp koy dégg de comme ku mel ni Seydina Omar ibn al-Khattab moom ku gë moo gënoon a toroxlu yàlla ci ñoom jamonoom waaye bu waxee ñëpp di dégg baatam ca kaw bu doxee nga dégg suuf ci ni muy yëngoo waaw ah, kum dóor ngay bëgg dee de te àgg na ci dayo toroxlu yàlla de ñooñu la nga xam ne ñoom ñooy tooxlul yàlla ci biir julli yàlla nee na ñoom ñooy texe de jullee ngoon nag yàlla digal na mboolem diine yi ci diine bàyyi goon asamaan ñoom ñëpp digaloon na leen ñuy julli yonent yàlla ibrahim julli na ñaan na rabbi a ñaan na rabbi ij'alni muqima salaati wa min zurriyati yow yàlla yàlla nga def ma may taxawal julli ak sumay doom wax na ne inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin Moussa digal nañ ko mu julli de wa awhaynaa ila Moussa waaqi an tabawwa li qawmikumaa bi misra bi misra buyutan waj'al buyutakum xiblatan xiblatan wa aqimu salaa kon yonent yàlla Moussa julli na de Isa moom itam julli na wax na ne inni abdullahi aataani alkitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan ayna kuntu wa awsaani bis salaati wa zakkaati ma dumtu hayyan de kon Isa munu julli na noonu tamit ñu digalee mboolem xeet yu jiitu woon moom lañ digalee xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ci jugi julli de ndax wax nañ leen aqimu salaa na taxawal julli de kon ñi nga xam ne nag dañuy toroxlu ci julli ñooñu yàlla tagg na leen ñoom ñooy texe de julli nag dafa am ay chart am ay ponk am ay teggiin bokk na ca julli ci mbooloo yàlla wax na ci alquran ne warka'u ma'a raaki'iina na ngeen julli ànd ak julli kon ci mbooloo go yonent yi wax na la salaata jaaril masjidi illa lil masjidi illa li udrin mi ne amul julli dëkkandoo yi jàkk amul julli lu dul mu jullee ci jàkk ja lu dul nga xam ne am na ngant imaam Malik nee na loolu gag naa ci ay at yu yàgg te ne képp ku julleewul ca jumaa ja ci jàkk ja rek amoo julli de waaye ma gis ne ma gis hadis yonent bi sallallahu alayhi sallam yonent wax ne képp ku julli moom kenn ku jullee ku julli ci mbooloo dana ëppee daraja ci ku julli moo génn ñaar fukki daraja beneen riwaaya la ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar de kon ku julli moo kenn am na julli waaye ku julloo ci mbooloo moo gën naa yàlla loola war ka oma raakiina julli neen ànd ak julli neen boo amul benn ngànt jullee di ca mbooloo moo gën de julli dafa am ay waxtu inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutan julli dafa am ay waxtu de yoo xam ne yàlla moo ko waxtoon kon na alladina hum yàlla tagg ne eh, yàlla wax ne ñi nga xam ne dañuy toroxlul yàlla ci julli ñooñu texe nañ de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag moom topp na ndigal yi ko yàlla digal yépp eh, topp na ko eh, lépp lépp lu ko yàlla tere bàyyi na ko moom ak sahaabam de ak mboole ñu leen topp ba péncam yàlla bàyyi nag ñu ne yàlla yàlla boole ci ñooñu de yàlla tudd tudd na leen tudd na yonent bi ak ñoom àndal nee na dañuy taxawal julli inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnaa min sulusi layli wa nisfahu ah, wa nisfahu wa sulusuhu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka de ñooñu nga xam ne dañuy taxawal julli ak ñi ànd ak yonent bi ñooñu yàlla tudd na seen mujj de ñooñu la wax ca mujj ak ca mujj ak ca mujj ak aaya ba dana ñëw ne ulaa'ika humul waarisuuna alladhina hum yarisuuna firdawsa hum fiihaa de ñi nga ñoom ñoo weddi julli googu bañ ko ne julli mooy abu jaalin ak ña ko topp ba pencam yàlla de ñoom moom lépp lu leen yàlla digal ñoom fëgg nañ ko bàyyi nañ ko de julli wuñ te julli wuñ rawatina ñi indi ay chartaami de fala sadaqa wala salla walakin kazaba wa tawalla moom julli dëggalu julliwu de weddi na de moom abu jaalin yàlla na tudd na seen mujj moom abu ak képp koo xam ne topp na ko seen mujj mooy leen maa salakkum fi xaalu lam naku min al musalina ñoom de julliwuñ de ndax loolu la ñoom bañ leen waxee ne leen lu leen dugal ci safara ñi ne dañoo nekkutoon di julli de kon jullee goo moom mooy asalaatu imaadu diin yonent bi ne julli mooy ponc mooy mooy keroog lislaam de képp ku ko taxawal taxawal nga diine képp ku ko mabbu mabbu nga diine de te mooy li nga xam ne mooy jokkale diggante jaam bi ak boromam de yàlla nag nee na texe na ñan mooy ñi nga xam ne dañuy toroxlu yàlla ci seen ak julli de mel na leen juróom ñaari melo mi ne alladina ak ñaaña hum ñoom muriduna way dëttule ani laxwi walis mbóosóor de ah walladina ak ñi nga xam ne muriduna way dëtt ah walladina ak ñi nga xam ne hum ñoom muriduna way ñi nga xam ne ñoom ñii euh, melal na leen melo yi mooy ñi nga xam ne bépp wax koo xam ne waxi caaxaan la dañ koo dënt duñ ci dugg mukk wax ju leen jëmewut ci yàlla wala wax yoo xam ne du leen fàggul dara ñoom duñ ci dugg dañoo dënt wax yooyu de duñ ci dugg mukk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bokk na ci rafet ak gëm yàlla mooy lu sa yoon nekku rek ku ci dugg de minal husni islami mari atarku ma la yaani kon ñooñu mooy ñi nga xam ne bépp waxi caaxaan rek dañ koo dëddu de walladina ak ñaaña hum ñoom faailuna way jëf lañ way joxe lañ di zakati ñeel asaka ñoom dañuy joxe asaka seen alal buñ amee alal ñu war ci génnee asaka dañ koy joxe de walladina ak ñaaña hum ñoom xaafiduna way wattu lañ li furujihim ci bay seen de illaa illaa dara ay jabar seen aw ma malakat yutiimuunaka aymaanuhum ay ndar joor ay ndey joor seen fa innahum na ko ñoom fa innahum na ko ñoom xayru maluumiina du ñu leen ñu leen ñu yedd ci dikkal leen de eh, ñi nga xam ne nag ak ñi nga xam ne dañoo wattu seen bëy lu dul seen jabar ya ak seen jéebéer ya de ñooñu tamit ñooñu bokk nañ ci ñu te de fa man ibtagaa ku na mu war a zaalika fa gannaaw loolu mooy gannaaw jabari ak jébéer dem ci yeneen jigéen bu duur sa jabar duur sa jébéer fa wulaayika ñooy la gaay ahum ñoom alaaduna ñoo di way jéggi dayo de alaaduna ñoo di way jéggi xalaal jëm ci xaraam de walladina ak ñaaña hum ñoom raawuna way sàmm lañ li amaanaatim ci kollel seen waatim ak kollel seen de kóllëre nga joxoon diggante yow yàlla ci keroog ba mu ne alastu bi rabbikum ñoom kóllëre googu dañ koo matal de ak kóllëre diggante ñoom ak jaami lépp matal nañ ko de ñooñu nag ñooñu ah, ñu texe lañ de walladina am ña ak ñaaña hum ñoom yu xaabiduna dañuy wattu ala salawaatihim ci julli seen de xam nga wax na fële ne ñi nga xam ne dañuy toroxlul yàlla ci julli fii nag mi ne ñi nga xam ne dañuy dañuy wattu seen julli wattu julli mooy nga joxe ko ca waxtu wa bu waxtu wa jotee rek nga def ko di ko waajal ut ndox jàpp waajal julli gi ñooñu ñooñ la yàlla tàggalee ñi nga xam ne nag ñoom la yàlla mel la leen melo yii ulaayika ñooñu la gaa yi hum ñoom alwaarisuna ñoo di way dondu de alladina mooy ñi nga xam ne yërisuna deneen dondu al firdawsa firdawsa hum ñoom xaaliduna way béel leen fiihaa te jooju la aljana te mooy firdawsi de ñooñu nga xam ne nag ñoom la yàlla melal melo yii ñooñu ñooy dëkkee aljana firdawsi de mooy aljana di gën a kawe ci aljana yi ñii nag ñoom ñoo fay dëkkee de ñi yàlla melal melo wii ci saar wii ci njëlbeen ak saar wii ñoom ñoo yelloo aljana firdawsi de muy may boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci yàlla subhanahu wa taala de tuddee na may bi ak donn ndax donn moo gën a dëgër ci sababi moomeef ah, yonent bi sallallahu wax na ne ma minkum min ahadin illa lahu manzilaani manzilun fil jannati wa manzilun fin amul kenn ci lu loolu am na ñaari kër benn këram ci aljana ak benn kër ci safar su fekkee nag eh, yéeféer bi yàlla Eh, eh, eh, bin yéeféer bi moom weddi na yàlla ci àddina këram gam amoon ci aljana daf koy perte kër googu nag mu perte moom lay jullit bi di boole ko këram gam amoon ci aljana de moo tax yàlla tuddee ko ak doon ne dañ koy doonu de wala qad xalaqnaa ñun de bind al insaana aadama min sulaalatin mu tukkee ko ci aji sell min tinin ci bande yàllaa ngi nettaliwaat suñ cosaan suñ cosaan mu ngi koy nettaleeti mu ne bind na aadama mu bàyyee koo ban ban boo ne ban bu sell la ci la binde aadama de dawee na daweeti na summa jaal topp ñu def ah mindee ah, ah, mindee boobu ah, doomu ci ngir teeg aadama ñi dindi leen nutfatan ci toqantal ma ñu de fii xaraarin ci saxuwaay makki nin ngay aji nukku de mooy ci rumuk jigéen yàlla nag bind na aadama mu jugee ko ci ban bu sell waaye bind na ay doomam ñi bàyyee ko ci toqantal ma ñu de mu jugee ci diggan ci góor diggante góor ak jigéen rek mu bind ko mu bind ci doomu aadama de def ko nag ci barab bu nukku barab boo xam ne dara mënta yàq loolu de lu moom yàlla mu bëgg koo yàq waaye barab bi ko def noonu moom yàlla bëgg ci amal doom dara mënta yàq loolu de ndax ci barab bu mu ko def la summa xalaq naa topp ñu bind an nutfata toqantal ma ni wa alaqatan muy muy lumbu de gannaaw ma nii bi nag wàccee ci yuum ak jigéen ji ba am juróom ñaari fan daal di soppeeku nekk daal di nekk daal di nekk lumbude fa xalaq naa te bind al alaqata lumbu woo mudxatan muy muy muy suux de ah, toqantal ma boobu nekk di nekkoon di lumbu yàlla mu jël mu nekk di suux am suuxi yàpp de fa xalaq naa te bind al mudxata suux ba yàlla man mu di yax de suux boobu nag yàlla mu ci def mu yax wu dëgër wow kongo fa kasaw naa tam woddee al izaama yahya lahman yàpp de yàlla nag daal di jël yax mu def ko muy mu def ko mu yàpp de mu delloowaat def ko mu yàpp ba mu nekk jëmi doomu aadama nii rek de rek du ma yasaru mu yombal ko rek mu génn juddu de kon yàlla moomu borom kàttan de ku mën a jël toqantal ma niw def ko muy lumbu gannaaw nga def ko muy suux gannaaw nga bind mu nekk yàq gannaaw nga yàq woowu nga mujj ko wootee ko yàpp def ko muy doomu aadama muy mindeef muy génn di catañ catañi xam nga ne pour def loolu xam ngeen ne borom kàttan la de duma ancha naaw topp musas ko ah ah naaw topp musas ko xalqan mindeef aaxara ah, nga topp mindeef eh, loolu noonu ma mën yu boobu nekkoon di toqantal mën yu nekk lu mu nekk soo yàlla sosaan na ci gis nga ci tawru yim jaar yëpp waaye gis nga yàlla sot euh, sos na def ko muy jëmmi doomu aadama muy jëmmi de muy jëmmi nit ki dafal ko ñaari loxo ñaari tànk bët bakkan gémmiñ mu dafal ko ko de ba am kàttan de moom yàlla de fa tabaaraka fa tabaaraka bëri na yiw allahu yàlla ahsanul xaaliqiina gën jaara métti way bindi de yàlla nag moom moo gën a rafet way bindi de aay bi nag bi yàlla wàcceeku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax dalee wala qad xalaqnal dalee wala qad xalaqnal insaana min sulaalatin min tiinin summa jaalnaahu summa jaalnaahu nutfatan fi qaraarin makiinin summa xalaqnal nutfata alaqatan fa xalaqnal alaqata mudgatan fa xalaqnal mudgata izaaman fa kasawnaa izaaman laxman summa anshanaahu xalqan aaxara ki doon bindee Omar Omar ibnu Xattaada ba tëb rek ne fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin ah yàlla moo rafet ñu binde abdullahi ah, abdullahi ibnu ubay ah, ibnu ah, abdullahi ibnu abi saraha moom fekk mu doon bind wax moom la ko moom mu koy bind moom it ba yàlla ba rek ak xalqan akara fa tabaraka ahsanul xaaliqin rek mi ne wax yu gi daal gannaaw man lay topp door wax yu gi daal man topp door li ma wax moom la wax moom mu jaaree ci daal di murtadde gis nga yàlla njub moo koy jox ku yàlla mooy jubal ku gis nga Omar ibnul Xattaab ba mu tollee foofu rek yàlla wax fi mu jaaree doomu aadama mu jaaree doomu aadama ba nekk ci nit Omar dafa tëb rek na fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin ah ab kii Abdoulaye ah, Saraha moom. moom bi mu ko waxee moom itam mi ne fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin wayu gi ñëw na yónent na ko wax ko bind ko noonu la wàccee sax noonu la wàccee rek mi ne ah sama yàlla daal su fekkee man lay daal man lay toppandoo wayu gi man lay toppandoo moom loolu moo ko murtaloo ba mu àllaku de te moo ko doon bind kon jub yàlla moo koy yàlla mooy jubal ku ku ko neex yàlla nañu yàlla jubal de Omar ibnul Xattaab nag daf daan tiitaroo ay mbir mi ne yàlla bind na wax ne fu mu doomu aadama ma wax ne fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin yàlla wàccee ko muy noonu de waxoon naa yonent bi ne ko ah, ne ko ne ko maqaama Ibrahima nañ ko def nañ ci def nañ ci def julleekaay sama wàcc sama borom wàcc dëggal loolu de na maqaama Ibrahima nañ ko jàpp muy julleekaay waxoon naa yonent bi sallallaahu alayhi ne ko sa ñu baax ñi. ñu bon ñëpp di dugg sa biir ne di dugg ci kër jigéen ñi loolu daal ñaanal ñaanal yàlla mu dindi loolu de yàlla nag daal di wàccee laaya ne képp koo xam ne mi ngi laaj jabar yonent yi na ko laaj ci gannaaw kiiraay de mi ne loolu dëppoo naa ak sama borom de ca maa ngi badariya la ma waxoon moom la yàlla wax de moom la yàlla wàcc ànd ak man de ba ba Abdoulaye ibnu ibnu Ubay ibnu Salul bam dee moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko doogu ci leen naafeq la yàlla dafa ma wàcc dëggal ne wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahu kafara billahi wa rasulihi wa matuhum fasiqun fasiq la de kon bëggul ci leen o oh, kon mi ne loolu eh, Omar ibn Khattab moom daf ko doon def di ko tiitaloo de di wax ne yàlla dëppoo ngaan man ci lii de yàlla mu jaaree doomu aadama nag ci bind bii mu bind ko nag mu nekk doomu aadama buy catañ catañ ñi am kàttan lool di yëngatu di dox def lépp fu mu mujj ak moom fii la jëmee moom la summa innakum topp naka yéen baada zalika gannaaw loola la mayituna a dee ngeen de gannaaw bu mu leen bindee bind boobu nag topp dana leen rey yéen ñëpp yéen ñëpp da ngeen dee de yéen ñëpp da ngeen dee summa innakum topp naka yéen a leen yowmal qiyaamati ca pencam yàlla leen dekkal pencam ku nekk lam jëfoon mu fay ko de kon benn ngoo ci ay tegtalam yuy yuy wane ne moom rek mooy borom kattan wala ñaara ñi nag wala xat xalaq naa ñun de bind nañu fawqakum ci kaw seen sabatara as as wala xat xalaq naa bind nañ fawqakum ci kaw seen sabatara juróom ñaari asamaan wa maa kunna nekkuñu gaafilina di way sekk di way sàggan anil xalqi walis mindeef ya nekk ci ronam de yàlla nag ne bind nañ juróom-ñaari asamaan tuddee na ko taraa'iqa ngir ngir ah yoon yi malaaka yi la fa jaar moo tax mu ay yoon moo tax mu juróom-ñaari yoon asamaan la ci jublu waaye mooy yoon yi malaaka yi rek fa lay malaaka yi di jaar rek wa maa kunnaa nekkuñu ñun way sàggan ah ah gaafiliina di way sàggan anil xalqi walis mbindee fi nekk ci ronom de ñun nag sàggu nuñ bind nañ asamaan yi muy juróom-ñaar te gën wattu giñ wattu asamaan ah, terewut ba mbindee fi nekk ci ron ñi fàtte leen de fàtte wuñ leen de eh, sàggu nuñ sàggu nuñ ci seen mbir ba asamaan moo ba asamaan war daanu seen kaw de ndax sàggu nuñ seen mbir de wa anzalnaa wàcce nañ mina samaa'i tukkee ko ci asamaan maa nag taw bi qadrin eh, kem ak seen afa askanaaw tam dëkkaloo ko fil ardi ci suuf wa innaa na ko ñun la qaatiluuna way xattali lan ala zahabin ci demee bii ci moom de yàlla nag ne bindal naa leen taw bi muy wàccee ci asamaan kenn seen aajo lu ngeen aajo ci taw rek bu nawet jotee loolu la leen di yàlla di jox yàlla du ko wàññi mukk du ko yokk li ngeen aajo rek moom la leen i moom tawal waaye su fekkee nag mbindeef yi dañoo mooy yàlla mooy yàlla yàlla mere leen taw bi daf koy toxal ci géej gi rek waaye am mu jot lam daan taw rek lay taw rek mës sa wàññeeku rek na li doomu aadama yi soxla ci taw rek loolu leen yàlla wàccal buñ mooyee yàlla nag ba ba mere leen mu jël taw bi taw ko ci géej gi rek nit ñi di jàmbur naan nawet bi ren moom amul dox ren bi ne amul dox fekkee am na dox de ca géej la ko taw de mu taw nag lenn lu ci des nag mu dëkkaloo ko ah, taw bi nag bu wàccee lii saxal gàncax gi ci des koy dëkkuloo ci suuf si ci biir suuf si daf koy bàyyi loolu moo tax bu ngeen gasee teen man faa fekk ndox bu ngeen gasee di tabax fekk fa ndox lépp lu ngeen ngeen gasee suuf rek fekk bu doo fekk yàlla moo ko dëkkuloo ci biir suuf si de. fa ansha'naa fa ansha'naa tam sos lakum ñeel leen bii ci moom bii ci moom taw bi jannaatin ay tool min naqilin ci tàndarma wa anaabin ak i xenab de. lakum ñeel leen fiyaa ñeel na leen ca fawaakihu ay ay ay foyteem kasiratun yi aji bëri de wa taakuluna ak la ngeen di lekk min haa moom de yàlla nag saxalal leen ci taw boobu ay garab bëri na lu ñu tudd garabi tàndarma ak inab loolu ndax ci yaaram yi la ko wàccee ñoom loolu rek leen daan saxal moo tax mu mën leen a wax duñ dégg waaye mboolem garab taw bi moom moo koy saxal de mu bindal leen ci ay fayte fayte mooy ay pom ak ay ay raisin ak ay orange ak mooy fayteef de bindal na leen ko ngeen koy lekk wa shajaratan tam ak garab taxruju boobu daf na génn min tuuri sinaa ci tuuri sinaa de tan bu dana mu saxal bidduni ci ci zaytun wa zibxin ak cuub lilaakilina ñeel ñeel way lekk ñe wala wa zibxin ak rënde lil aakilina ñeel way lekk ña yàlla nag mu saxal ca tuuru Sina garab ak foofu mooy cosaanam foofu la saxal zaytuun mooy mooy li lekk mooy doom bu verte boobu ñuy lekk olive moom loolu mooy zaytuun loolu moom mooy moom mooy moom doom boobu nag yàlla mi ko taxal mi ko saxal ci tuuru Sina de muy garab goo xam ne garab bu tedd la yàlla tuddee na ko ak cuub ndax lépp lu mu dugg naa soppi couleur ba boo boo ko toggoo pare jël sotti ko ci mën naa soppi couleur bu moo tax mu ko ak cuub de mën na koo niinal changé euh, euh, euh, caf ka gën a meloon na koo changé de ni cuub di changé yére moom itam noonu lay changé lekk de wa inna lakum naka ñeel na leen filaaami ci jurikat yi muy gëlëm ak nag ak xar la ibratan xalam nasqikum daf na nandal leen mimma fi butuniha li nekk ci biir seen ci meew wala kum ñeen la leen fiha ci juri kadi manaafiun ay njëriñ kasiratun yaay aji bëri le yàlla nag bind dafa bindal na leen xar ak nag ak bëy ak gëlëm yooyu yëpp def na leen ko loolu nag mu bind war ngeen cee xale mee de xam ne ku def lii kenn la te rek moo jar ñu koy jaamu de moom rek mooy yoo jaamu de mu defal leen ñu nekk ci biir eh, eh, eh, ci jur bi biir nag wala gëlëm wala xar mu defal leen ci ay meew soow yoo xam ne da ci da ngeen ciy naan de defal na leen ci tamit ay njëriñ yu bëri ni ki der ba man ngeen cee def yére man ngeen cee def ba nga xam ne sedd bi du leen mën a sonal ak ak ga ak karaw ga lépp ak neefere ak yëpp nit ñi am nañ ci soxla de am nañ ci njëriñ de loolu yëpp moom moo leen ko defal de wa taakuluna ak la ngeen di lekk minaa ci moom ak la ngeen lekk de muy yàpp ma ak la ngeen cay naan yàpp bàyyi mi ne bu ñu yàlla bindlu toon gàtt yi dagal nañ ko xaw ma fan la jëlee yàpp ba lekk ko am na ñoo xam ne kon suba teel buñ bëggee lekk yàpp dana leen tëb duñ ko mën a lekk duñ am fuñ koy jëlee ndax daganu leen ko def boo bëggee meew koy jëlee meew ba man koo am doo am de kon nag yàlla def na ko de wa toxmaluna def na ak ci alayha ci ñoom de waalal fulki ak ci gaali de te da ngeen ci yéen heure bu ngeen nammee tu euh, tukki euh, bu ngeen nammee tukki ci jéeri ji ngeen war ngeen war leen de ngeen war gëlëm wala ngeen war euh, wala ngeen war nag ngeen dem de ak bu ngeen bëggee mu defal leen bu ngeen bëggee tamit tukki ci jéeri ci ci géej gi mu defal leen gaal de ngeen man cee war pour mën a dem seen maqaasit fa ngeen mën a jëm de waaye bu bindutoon gaal kon nit ki fan lay jaar ba mën jaar ci dëkk yoo xam ne ñu ngi ci gannaaw géej de kon yàlla moo leen defal loolu de saaru màkk nag fokk dana indi xisaa yonent ya loolu yëpp def na ko ngir def loo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñii di ko wetti ak yonentam waa màkk xam ne ñii wetti wetti yonent bi xam ne leen a xalak naka mu xalakee woon ña ko ña leen jiitu woon tañ wetti seen yonent de buur ne wala qad arsalnaa ñun de yónni nañ nu an yonent yàlla noox mooy njëlbeen ak yonent yi yi nga xam ne ñoom la yàlla joxoon shariatu ilaa qawmi ñu jëm ci nitam ya fa qaala mu wax yaa qawmi yéen ni sama yaa qawmi yéen ni sama ubudullaa wéeta leen ak yàlla jaamu de ba topp ma maa lakum de di ñeel leen min ilaahin buur gayroo ku dul moom abala tattaquuna tere ngeen ragal yàlla de ragal yàlla mooy topp ndigalam bàyyi tereem de bu leen ko waxee nag fa qaala wax al maru way tedd ñaar ladin ñi nga xam ne kafaru wet nañ min qawmi ci nitam ne ma haada déet nu mi ne illa basharun dere doomu aadama mislukum kem seen ne noox mi nekkul ab yonantu ab doomu aadama comme yéen rek de yuridu dara mu na mu an yatafaddala mu gënal aleykum ci yéen walaw shaa allahu doonte soob na yàlla ba duñ jaamu keneen kon la anzala dana wàcce la anzala dana wàcce malaayikatan malaaka yi de yàlla daal bokkutoo ci jaamu këram yi kon dana wàcce malaaka yi de waaye nuux mi mënta nekk yonantu ndax doomu aadama rek kese de doomu aadama kese de gis nga la nur nañ ci iblis la iblis dafoon ah loolu toujours rek lenn ci doomu aadama yi koy def iblis bi ko yàlla waxee na ko su jootalal aadama su jootalal aadama ah yàlla wax ko malaaka yeeg iblis yëpp malaaka yëpp dañoo su joot ba mu des de da wane ana xayrun minhu man maa gën de ndax xiyaas na boppam nattale boppam ne moom daal moo ko gën mënta su jootal gis ne ne cosaanam ñu ko bindee ci safara takk takkal safara leer te aadama mii ñu ko bindee ci lëndëm de ci ban lañ ko bindee te ban lëndëm la de kon moom moo ko gën te leer nag moo gën lëndëm mu xool lam saxoon di jaamu yàlla ne jaamu yàlla ay jamono yu yàgg yàgg yàgg yàgg kon moom te boobu bindaguñu aadama kon moom moo gën aadama kon du ko sujjootal de loolu nag dawee woon ci iblis ba tey ba ci jamono ji moom mooy dawee moom mooy daw ba tey de dañuy xool rek ne yi daal mënta nekk loolu ah, daloon iblis moo dal nit yonent yàlla noo bañ ne ah kii daal eh, doomu aadama kese la nit la comme ñun mënuñoo gën ña mënuñoo gën kon mënta nekk ab yonantu bàyyi mi ne loolu mooy seen dof de seen dayob dof mooy loolu de ndaxte eh, li gën a dof kay mooy ku mën a jël estati xeer ay bant yetti ko ba mat nga taxaw di ko di ko sujjootal ne kii mooy sama yàlla mbindeef mu mel ni doomu aadama kay ak ni mu matee ci bind ak ni mu rafetee wàcc ne yàlla ma yónni kanaa loolu kay buñ amoon xel kay daneen xam ne lii dëgg la de ndég nga ñu ne yàlla nag bu bëggoon ñu jaamu ko daal kon dana wàccee ay malaaka de ah nuun oo ne ñu wax nag ne maa same naa ñun de mosu ñoo dégg bi aada ci lile fii a bàyyi naa si bàyyi suñu àlla wali na ñu fi way njëkk de lii moom di ñu ooyee naan nag jaamu yàlla kese buñ ko sàkkal bokkaale lii ñun mosuñ koo dégg ci ñun suñu bàyyi ñu jiitu woon nekk in huwa den moom noo illaa rajulun de rek waaye la bii nekk ni ci moom jinnatun ak jinne de fa tarabbasu mu ñu ni ku leen bii ci moom atta inin ba ci waxtoog deeyam de nañ ko mu ñu ni ko ba mu dee mu noox mi jinnee ko jàpp rek ni ngeen ko bàyyi ba mu dee jot rek mu dee de xaala wax noo na rabbi yow borom sama unsur nii yàlla nga dimbali ma bi maa kazzabuni ci ñooy wetti de ñi nga xam ne ñii ñoo may wetti nga ma dimbali ci ñoom de ñaanam yonentu nag yàlla daf koy nangu ba mu ñaanee rek yàlla daal di ko nangul de faaw naa teñ wax yu ilay ji jëm ci moom a an naka lay ngir téeméer is naa yi jëfal alfulka gaal bi ayuni naa ci wattu suñu bi ayuni naa ci bëtt suñu de ko wayi naa teñ wax a فإذا جاء فإذا جاء نمدكنا أمرنا أمر ما ركبتني وفار تفور التنور فوربا سبوبا نفضل قرفة فيها تمام min kulli zawjayni a fiyaa ca ga min kulli zawjayni ci bépp ñaari xeet nañu ñaar de yonent yàlla moom nag bi mu ootee nitam yu at la oo ñi bañ ne duñ ko gëm ah mu jigi nag mu xam ne ñii ñoom duñ ma gëm ñii moom gannaaw sax naa ci ñoom diir bii duñ ma gëm de naka ña netti loolu ci saaru hóot bi loolu amee nag mu ñaan yàlla ne yow yàlla maa ngi lay ñaan sama ni ñii yàlla nga leen xaral de rabbi laa tazar alal ardi minal kaafiriina dayyaara képp kuy wétti yàlla ci kaw suuf rek na nga ko xaral ñëpp xaral leen yàlla nag ba nangoo ñaanam yàlla na ko yettil gaal mu dem nag jëmbat ay garab garab mu jëmbat leen ba garab yi ñor mag mu dagg ko yàlla na ko yettil gaal ñi ne jibril la yónni mu wan ko nu ñuy defee gaal mu koy def ñi ne déeréet yàlla moo jox semmi mi ndigal euh, euh, euh, ne ko téel semmi mi rek moom dana ko wax ni muy jaar ba nga mën a am gaal gi wax ñu ne sëriñ ni bu dóoree lam ca war a génne mu génne ko lam fa war a bàyyi mu bàyyi fa noonu la ko def ba gaal gi pare ah noonu nag foofu mu nekk di liggéey gaal gars yi buñ ko borom bee rek di ko dee ci ne wakul la ma wakul la ma marra alayhi ah, ah eh, bu ko mbooloo mi rombee rek ñu ngi koy ree di ko ree di ko ree rek ah ñu ne ah ku doon oote ak yonantu mu mujj lu nekk am malise di yett ab gaal ah kii nga du aw yonent bu yettee gaal gi nag ba guddi jot mu dem tëri bu bëccëgee bu guddee nit ñi ñëw daldi dem foofu di fa génn ay tànk mujj gi daal yàlla na ko yaraw aw xaj bu yar aw xaj nag yeew ko fa moom moo njëkk a yar aw xaj moom noonu bu ñëwee nag bëgg faa génn tànk rek rek xaj boo leen ñu daw de noonu nag ya ba gaal gi pare nag yàlla na ko mandargaay alak si nit yi mooy lan fekk noox amoon na benn pour boo xam ne ci lay lakkee mburu mu ne ko bés boo xëyee nga tijji sa pour bi gis mu génnee ndox rek xamal ne alaku ñëw na xamal ne bés boobu ci lay sa nit ñi di alaku de bés bu nga gis loolu dawal rek dem ca gaal ga yow ak mbooleem ñi la nga dugal ci gaal gi xeet bu nekk na ci dugal ñaar de na nga ci dugal ñaar nga bu euh, euh, góor ak jigéen bu ne nii ndeyjoor góor dugg bu ne nii jigéen dugg nuux nag gaalam bi nim nim meloon mooy daf koo tabax daf koo defar bi nekk ci suuf bi nekk ci suuf bii nekk ci digg bi li ñuy wax air prise de noonu la ko defee woon ñetti étage moom la ko defee woon ci suuf ci la mboolem daaba yi euh, nekkoon muy fas yeeg mbaam yeeg yëpp ak mboolem euh, ki xayawaan ci lañ nekkoon ci digg bi ci la doomu aadama yi dëkkoon ca kaw ci la njanaa yeeg lépp luy naaw ca la nekkoon de ñoom ñëpp nag mu dugal leen ca gaal ga de moo tax yàlla na ko boo ko boo jëfee gaal ga nag ba mu pare ba gis mandarga boobu ñu la wax parce que xarafeel fiyaa ca gaal ga min kulli zawjayni tukkee ko ci bépp xeet is nay ci bépp di ñaar de wa ahlaka ak ñooñ sa ak sa ñooñ nañ leen dugal ci gaal ga muy muy jabaram ak doomam amoon na jabar ay jabar ak i doomam illaa man sabaqa ndalaka jiitu naa alay ci moom alqawlu baat ak mbugal bi minhum ci ñoom lu dul nag ñi nga xam ne baatam bugal ba jiitu na ci moom wéet nañ yàlla noo amoon na ay jabar waaye jabaram ji tuddoon waahilat ak doomam kanaan ñoom dañ koo wétti woon gëmuñ ko woon moo tax yàlla ne ko gaal gi nag ñooñu nañ dugg waaye lu dul ñi nga xam ne nag ñoom baatam bugal ba jiitu na ci ñoom de ne ñoom dañuy xalagu foog ñu bokk ak ñi xalagu foog ñu xalagu de gaal gaal ngoog nag gaal ak yonent yàlla noo gaal ngoog nag mu départ yàlla ne ko nag bañ ci duggee mu dugal ñëpp doomam yëpp mu dugal leen de yàlla ne ko wala tuqaatib nii bul wax man fi lladina ci ña nga xam ne azzalamu wetti nañ de innahum naka ñoom muxraquuna ñuñ labal lañ di ca de yàlla koy waxtaan xam ne ne doom dafa sori ci xolab baayam ak ak jabar moo tax yàlla ne ko nag ñi nga xam ne xalaku nag ne ñoom bu ci waxee man de ñooñu mooy sa doom jeg te jabar ji ñooñu dañuy xalaku de kon bu ci bu ci waxee man de yàlla nga koy wax de noonu nag daal di dugg ci gaalam daal di dem de yàlla na ko fa isa stawayta ndem yemoo nga ante yow man maaka ak ñi ànd ak yow alal fulki ca gaal ga bokkul yow alhamdu cant lillahi ñeel na yàlla alladi yàlla mi xam ne na jaana musal nañu min al qawmi ci ñit azzalimina ñi di way tonja azzalimina ñi di way wetti de boo duggee ca gaal ga nag na nga ñaan ñaan bii de mooy sant yàlla mi nga xam ne moom moo musal ci ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla de gaal ga am na juróom benn weer ca géej ga rajab la woon a ah, ah, shaban ramadan shawal zulqaadati zulhajji ba muharram ci bésab ashura ci la gaal gi teer de ba gaal gi na mee teer nag yàlla jigéen wax yi na ilham mboolem doj nekkoon montagne nekkoon ci àddina ne leen gaal yonentu yàlla noo dana teer bésab sàngam ci waxtu sàngam ci doj sàngam de doj yëpp radwa doj wu woowu ne man maa ko yelloo de jabulu uhud ne ci misra rek ñu ngay sikkilu naan loolu man rek maa ko yelloo de juut yi moom benn doj la nekkoon ci Iraq ca Mawsal moom mi ne man daal yelloowuma lii de man daal yelloowuma lii de yelloowuma lii ah moom mu suufeeleel boppam nag ah boppam moom la yàlla def moom moo ci gaal gi ci moom la terde wastawat ala juut yi ci gaalam yonent yàlla noox nag ca ah, juut moom la eh, terde nuuxul nag ba mu dawalee gaalam googu di daw di daw di daw ba yàgg ba mu yàgg lool nag ndax bi yàlla euh, euh, euh, indee loolu rek yàlla dafa jox ndigal keroog suuf seeg asamaan yépp ñuy sotti ndox ba nga xam ne garab yeeg kër ye montagne yeeg lépp ndox mi daf leen a muur de ba nga xam ne gisatuñ dara gaala yonentu yàlla nuux rek moom moo moom moo ci moom mooy moom la ñuy gis de waaye lépp rek muuru na de bay ba mu dawee nag lu yàgg-yàgg daw ba am juróom benn weer mu yónni baaxaañ ne ko damal nga seetal ma ndax dama nga seetal man daa eh, ndox mi mi ngi commencé wàcc baaxaañ déparé dix minutes rek moom jaar fa moom fàtte na sax li ko yónni li ko noo yónni woon moom nekk te di lekk ba fàtte li ko yónni woon ah, mu toog lu yàgg ñëwut ah yàlla yónni pitax ne ko ne ko ne ko demal nga seetal ma ndax ndox mi mi ngi commencé wàcc mu yónni ko mu dem ba mu demee gis ne ndox mi ñëw na ba ci xobi garab bi mu dagg benn xobi garab sax ko ñëw ba ci noo wan ko ko noo xam ne ah ndox mi ak fi ne ci garab yi mu demaanu yàgg mu yónni ko ne ko demal mu dem moom pitta dem ba mu demee gis ne ndox mi am na am na place boo xam ne suuf saa yi commencé feeñ mu laal ci ay tànkam euh, dem ci noo noo gis ko xam ne ah am na foo xam ne moom ndox mi jeex na fa mu daal di yëkkati benn càq takkal ko ko moo tax pitta ngeen gis ci doxam bi lu mel ni càq noox moo ko ko takkaloon mu ñaanal ko ko ne ko ne ko yàlla na yàlla may kóllëre yàlla na yàlla may kóolute yàlla na ko yàlla may loolu moo tax pitta moo ëpp kóolute de eh, baaxaañ moom mu ñaanal ko ne ko yàlla bu am kóolute moo tax fu mu fekk foo fekk baaxaañ rek mu ngay ragal di tiit de waaye pitta moo am na kóolute waa xam ne mënoon nañoo fekk fii dugg taxaw fii te du ragal dara tey yàlla suturaal na ko bépp tool bu ñàkk pittax moom ci biir waaye duñ ko ci tudd mukk dañ naan picc yi rek waaye duñ ko tudd fekk moom lam ci lekk moo ëpp la ci ñi ñu lekk foofu de loolu yëpp yonent yàlla noo moo ko ne moo ko moo ko ko ñaanaloon de kon nag noo gaalam nga teer ba mu teeree nag ca bés asura asura ca tam xarit ci la ci la teer nag ba mu nag netti woon nañ ko sa bi ca saaru moo tax moo tax duñ ci guddal waaye yonent yàlla ba gaalam nga teree mbooleem ñu duggoon ca gaalam nga ñoom ñëpp dañoo jërmeel e kenn mënta am doom de kenn mënta am doom lu may e, doomam yi de e, yonent yàlla noo amoon na ñeenti doomi góor kanaan moom ànd ak naag gaa yi lap ndax gëmutoon baayam saam ak xaam ak yaafi ñii ñooy ñetti doomi yonent yàlla noo yi nga xam ne ñoom ñoo juraat àddina yëpp de Ah, gannaaw ba yonent yàlla noox duggee ci gaalam ba wàcc mbooleem nit ñi ñëpp ca kenn mënatu ko am doom moo tax képp ku juddooti rek ah, li ah, lépp ci njurte yonent yàlla noox ci nga jugee de moo tax ñu koy wax Adama Saani Saam nag di yon di doomi yonent yàlla noox moom moo jur tënkëb tënkëb orifa mooy arabi ak Room ak Faris moom moo leen jur xaam moom moo jur tënkab sabaqa suudaan ak barbar ak xibt moom moo leen jur yaafis moom moo jur tënkab siitu saqaaribatu ak yaajuuj ak maajuuj ak turk ñi ñëpp ci doomi yonent yàlla nooxe ci lañ bàyyeekoo de comme ñoom ñoo tudd laat àddina bi de bam tool nii de hmm. waqul waxal nag boo wàccee ci gaal ga na rabbi ya borom anzil nii yàlla nga wàccee wa munzilan wàcc waay mubaarakan ba di buñ barkel de wa anta yow xayrul munzilina yaa gën ci way wàccee nga de mu wàccee ko ci wàcc waay bu barke inna fi zalika nekk nekk na ci loolu ñu tudd ci ci ci solos yonent yàlla noo ak gaalam nga ko alakoog nitam ña laa yaatin tegtal buy wane sama kattan de wa in kunna naka nekkoon nañ la mubtalina di way nattu nit yonent yàlla noo de wala di nattu noo ah, yónni ko ci nitam ña junne ak mu sax fa summa ansha'naa topp ñu sos min ba'dihim fa gannaaw seen qarnan aw nit aaxarina ñeneen de fa arsalnaa te ñoon di fii ci ñoom rasulan ay yonantu minum ci ñoom te mooy yonant yàlla hóode an naka lay mbir tey mbir ubudullaaha wétta leen ak yàlla jaamu maalakum dékk ñeneen min ilaahin bu xayru ku dul moom afalaa tattaquun te ngeen ragal yàlla de gis nga mboolem yonantu bu ñëw rek moo euh, ñoom yonent yëpp ñoo bokk ñoom ñëpp wéetal yàlla la ñu woote ak tawhid de jaamu yàlla te bañ koo sàkkal bokkaale wa qaala wa almaru woyte ni min qawmi ci nitam ña alladina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ wa kazabu tañ weddi bi liqaay laaxir ci dajag àllaaxira awaatat naawum tañ tañ xeewul leen fil hayaati ci dundu ak dunyaa kay jege ñi nga xam ne nag yàlla wërsëgal na leen jox na leen alal te nit yonent yàlla hooja muy borom xaalis ya borom alal Hud mi illa basharun deret doomu aadama mislukum kem eh, eh, seen ah, yaakulu dana mu lekk mi maa taakulu te dangeen lekk ko de mi ngi ci moom waaye sharabu tam na naan mi maa tasharabuna talla dangeen eh, talla dangeen naan ko de nuux mi mënta nekk Hud ah, ah, mi mënta nekk de ndax moom mënta nekk doomu aadama kese de li ngeen di lekk lay li ngeen di naan lay naan kon nekk ak yonent wala in aqatum wallaahi dem topp ngeen dem topp ngeen basharan doomu aadama mislukum kem seen innakum naka yen bu ngeen ko demee isan booba la xaasiruna way perte ngeen de ndax boobaa da nekk ñoo xam ne da ngeen di toppe rek loolu ngeen di doon de ah moom xool nag ay ay dukum dem ne dem ne dër leen te annakum naka yéen isan mittum dem a ngeen wakkuntum da ngeen nekk turaban di su wazaman ak ya annakum naka yéen moxrajuna ñu génnee lañ de noonu nag mag leen i kon mag leen i naan bu ngeen dee dañ dañ leen di hay haata sori na ay haata sori na li ma tu aduna def leen tëkkoo leen ko de lim leen tëkkoo naa da ngeen dunda da ngeen dañ leen dekkal seen bàmmeel li leen hóoti wax yi dara amu ci in hiya déet moom dundu in ah, hiya déet moom dundu illa hayaatu naan de dundu suñu àdduna bay àdduna de suñ dund daal mooy dund bañ dundoon ci àddina na muutu danañu dee ñun wa nahyaa danañ dund suñ doom de mooy daal ñun daneen dee suñ doom yi dund rek suñ gannaaw te doom mooy taawe taawe bàyyam dund googu rek lay wax de wa maa nahnu dee ñun ba bi ma ko si ne ñi de kenn duñu de buñ dee kenn duñu dekkal in huwa déet ñoom ah in huwa déet moom xóot mi illaa rajulun dara waaye iftaraaw tuutal na ala llaahi war yàlla kadiban fen li muy wax ni yëpp dafay fen yàlla waxu ko de wama nahnu wama nahnu déet ñunu bi mu ngi ne ñuy way dëggal la wu ñaan ko de ñun gëmuñ ko de ah bi ma bi xamee nag ne nitam ñi wéeti nañ ko moom hun nag mu ñaan yàlla xaalam wa rabbi yow sama borom moom seen yàlla nga dimbale ma bi ma kasa bu nii teel a na ma ko de dama nit ñi may weddi yàlla nga ma dimbale ci ñoom de xaala wax ko moom buur ne amma xalilin ci jamono ju néew la yusuf bi am na deneen mujj naati mi ne di way reccu de mu ñe rek ju néew de deneen mujj ñoom ñëpp reccu de reccu gaaw de reccu dinaa la indil mbugal de faaga zoon dem jàpp leen asay atu xaatoog jibril la mooy mbugal bil xaq ci dëgg de fajaal naam teñ mujj leen wasaa a ñiti boob de fo boodan a soli na buur bi yermaane li xawmi ñeen nit waa a zaalimi ne ñetti way wetti ñene Jibril ñëw rek daal di àll ngeen ñoom dayoon ci saar wóor su ma anjanaa topp musal mi baat yi fa gannaaw seen qurunan ay nit de aaxirina ñeneen maa tasbiqu defu jiitu min ummatin ci aw xeet a min ummatin ci aw xeet ajilaa digam de wa maa yastaqirun te defu yee amul benn xeet boo xam ne mbugal nañ ko mu jiitu waxtu wu ñu mu ne moom lañ de xeet wu nekk sa waxtu mbugal bu jotee rek ñu mbugal la de waaw su ma arsalnaa topp ñu yónni Ah, topp ñu naa suñu yonent le a ah, tatrañi di way toxtaloo kullama jaa saa bu saa bu a ummatan a ah, xeet a ummatan xeet rasuluha suñu yonentu a kazabu weddi ko de eh, eh, eh, ñun nag ñu yónni ay yonentu jamono ju paase rek ñu yónni waat yonentu de jamono bu paase rek ñu yónni waat yonentu de ba yàlla yonentu yàlla ba yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ci ñëw ci yonentu de faat waa naa tam tofal a baa bi ñenn seen baax dañ ñenn ñi wajaal naam te mujj leen ahadisa ñuy waxtaan fa boodan sori na buur ba yërmaane li qawmi ñeen nit laa yuminuun ñooñ gëmuñ de ñooñ nag yàlla di yónne ay yonantu mu leen di xalak ñi leen di yónni mu leen mu yónni gannaaw jamono ji yàgg na summa arsalnaa toog mu yónni Moussa yonantu yàlla Moussa wa aqaaw ak mbokkam ma Haaruna Haaruna de bi ayatinaa ci kawte bi juróom-ñeent wa sultaan ak lay mu binin ngay aji bidde ilaa firawna mu jëm ci firawna wa malayi ak mbooloo ma fastakbaru tañ rey lu walis gëm de wa kaanu tañ nekk xawman di nit aali nañu di way not ba ni israila ci tonje fa um Musa ak Haaruna yàlla yónni leen ci ci ci ci firawna ak xibtu waaye ñoom gëmul leen de fa xaalu ñu wax a numinu dëggaltuñu lil ba li basharayni ñeel ñaari doomu aadama si naa kenn suñu wa qawmu wa qawmuhuma te nit seen ñoom ñaar aabiduuna way jaamu leen nanaa ñeen te ñoom sax seeni nit ñi muy banu israel ñoom suñu jaam lañ ba pare ñi ñëw naan ay yonent lañ ñii mën ñoo nekk yonent de fa kazzabuhuma te ñu weddi leen ñoom ñaar muy Musa ak Haaruna fa kaanoo te nekk ñoom nit ñooñu weddi ko minal moo lekki ne ñu bokk ci way alal bu ñu def wala qad aataynaa ñu de jox nañ Musa Musa alkitaaba tawreet laallahum ndaxte ñoom banu israel yaata doona ñu jub de walis réer de wajaa naa tañ def ibnu maryama doomi maryama te mooy isa wa ummu andayam aayatan ñii kawteef de waxut aayatay ni benn kawteef rek la wax ndax kawteefam mooy mooy doom moom moom mooy isa mu judd ci lu dul baay rek de wa a ah wa aaway wa aaway naahuma tam tàppaleen ñoom ñaar ilaa rubbati ñi dem ci tundu de ñu ne mooy bayt maqdis wala dimis bi wala falastin zaati xaraarin ke borom ak saxwaay wa maayinin ak wa maayinin ak yi sew na de eh, eh, eh, yonent yàlla Isa moom mu ngi ca barab bu ñu wax moom la juddoo foofu la juddee naasaratu foofu la juddoo waaye nag ba mu dañoo toxlu dem Sham ca Falastin ca Baytil Maqdis fa lañ dëkkoon fa lañ dëkkoon de foofu nag mu juddoo ay montagne la woon woo ne yàlla daf ci defoon sew de woo xam ne dafay dafay daw ay ndox yoo xam ne dafay daw de ndox moo xam ne silwaan lañ ko tuddee mel ni zam-zam ci jullit ñi boo xamee ne jigéen njaalo la euh, tuumaal nañ jigéen ne dafa njaalo dañ ko yóbbu ci seen ndox moomu bu ci naanee su fekkee luñ ko tuumaal dëgg la dafay dee ci saasi su fekkee nag du dëgg rek da ngay gis dafay continuer dundam Mariam yi ba mu juree Isa ci lu dul baay dañ koo jël rek yóbbu ko ci seen sewlo woo bañ demee ñi nandal ci Mariam mu naan duñ naane rek dund ñi xam ne kii daal eh, eh, eh, kii njaaluwut de yàlla moo dawal ci moom lii rek yàlla moo ko def de Mariam nag ci la ñaan ne yow yàlla maa ngi ñaan lii nga xam ne mooy gàcceel jigéen ñi maa ngi lay ñaan yow yàlla yàlla na ko dindi ndax daal mi ngi gàcceel jigéen ñi rek jigéen bu ngi njaalu rek ñëpp xam ne njaalu na yow yàlla lii yàlla na ko dindi de ci la ndox ma ngiis yàlla ngiisal ndox mi nag ba jamono jii doo ko fekk dara ci ndox de kon dëkkuwaayu Maryam ak Isa ña dëkkoon ca kaw jabal ba nekkoon ca bayt maqdis muy jabalu zeytuun faleñ faleñ dëkk de seen barab ñoom ñaar nag mooy ca jàkk ja mooy mihraabam Zakariya dañ ko jàngi woon ca saaru Baqara moo tax mi ne benn laaya ñëw na ci tawreet wala ci linjiil ne allah min tuuri siina ila jabali zeytun wa tawajja ila faran mi ne mi laaya ñëw na ci tawret ne yàlla ñëw na jugee tuuri sina jëm jabalu zeytun jublu gannaaw ba jublu faaraan muy makka mi ne moo réerloo yahood yi ak nasaraan waaye lim ci jublu mooy laaw googu lim ci jublu xalifa yàlla la ci jublu mooy lan mooy xalifa yàlla ba feeñoon ca tuuru Sinaa ñi wax yonent yàlla Muusa ah zeytun mooy fa ñu koy wax Isa ibnu Maryama faaraan nag mooy Makka mooy fa xalifa yàlla ba feeñoon ñu koy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla nettali ci Alxuraan wa tiini wa zeytuni wa tuuri Siniina wa haadal baladil amiin loolu la ci jublu yaa ayyuha rusulu yaa ayyuha rusulu ee yéen yonent yi kullu lekk leen min at-tayyibaati ci way teey de wa amalu jëf leen saalihan farat yaag naafile de inni naka man alima aji xam la ma aji xam la bi maa taamuloon te la ngeen ko de yonent yi yëpp nag yàlla digal na leen ne lekk lu tee de de lekk lu tee bu lekk daal na ngeen lekk lu dagan waaye bu lekk loo xam ne daganut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bés ci bés boo xam ne bis bu tàng la tàng jër benn jigéen da nga nekk foo mi yore woon benn soow njaram soow mu neex sedd guy mu gis ne dafa tàng ba yonent toog ci saxaaba yi mu yónni kenn ne ko dama nga jox yonent bi ne mu naan lii ndax tàngoor bi yonent bi ne delloo leen ko ndaw si ngeen laaj ko fan la jëlee meew bi fan la ko jëlee ñi laaj ndaw si mu ne leen maa ngi ko jëlee ci sama gàtt ñi indiwaat ko ñu ne ko ndaw si nee na mi ngi ko jëlee ci gàttam mi ne leen delloowaat ko ne ko gàtt bi moom fan la ko jëlee mi ne gàtt bi dama koo jënd ci sama alal goo xam ne man maa ko fàggu ci sama loxo maa ko liggéey sama loxo ñu fay ko ko ma jënd ko gàtt boobu nag ci laa jëlee meew mi jox la ko yonent bi daal di naan nag ko laaj ne ko waaw bi li ma jox la sama meew ñoo koy delloo mi ne ko ñun yonent yi ñun mbooleem yonent yi yàlla daf ñuy digal ñuy lekk lu xalaal lu dagan loolu rek moo tax ma la koy laajte kon nag inni yàlla ne leen ngeen lekk lu teere inni inni maa ta'maluuna alim de wa anna haadihi nekk bi le diine ummatukum mooy diine seen ummatan diine la waahidatun bu ci benn wa ana man rabbukum maay borom seen dafa taquuni na ngeen de fa taqataw te dagg amru mbir seen baynum ci diggante zuburan ay kuréel de ay kuréel kuréel dagg nañ loolu de kullu xisbin bépp kuréel farixuna aji bég la bi maa la dim la nekk fa de doomi addina yi ne ku nekk nag la lay bégloo rek ca nga nekk doomi addina yi ñoom addina rek moo leen di bégloo doomi àllaaxira yi ñoom àllaaxira moo leen di bégloo de ñoñ yàlla nekk yàlla rek moo leen di bégloo de allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayyidil awwalina wal axirin yàlla mu nga tàmbali baag si yàlla ci yàlla ko àggalee jàmm te bañ cee def ndog yaara bi yàlla mu nga xam dëgg dëgg yàlla ñu ko xamal barke alquran yàlla ka nga wasal ak ki ñu wasal ci moom barke diine islam barke a Cheikh Ahmed Tidiane barke maam alhaaji Abdoulaye barke Baye allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa